bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sadid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay barkeb cheikhul xadim Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, chère daïra des élèves et étudiants de Mbacké permettez-moi tout d'abord de vous euh, démontrer tout le plaisir que j'ai et tout l'honneur qui m'habite aujourd'hui de participer à euh, cet événement riche en connaissances et en sagesse ici à Mbacké ma présence à Mbacké euh, démontre comme je le dis très souvent, qu'il n'existe pas d'hasard. Car je n'ai jamais effectivement euh, vécu à mais mon grand-père maternel fut le maire de pendant plusieurs décennies, du nom de Sambayele Diop. Donc, si je reviens aujourd'hui à dans le lycée pour discuter avec mes chers camarades élèves et étudiants, je pense que c'est un coming back. comme nous disons chez nous, aux États-Unis. je suis très contente de, participer à, à, activités. Euh, et je suis très, très je le dis et je le répète, parce que tout simplement, je pense que la sagesse et la connaissance sont des éléments euh, importants et ça commence, l'affleurissement au sein des euh, différents Euh, écoles, institutions, là où en tout cas on crée la connaissance. Donc encore une fois, je suis très honorée et très contente de pouvoir participer à cet échange autant intéressant que, florissant ici à Mbakebawal, donc notre, notre commande euh, pour vraiment ne pas perdre du temps et avancer dans le thème, euh, le qui a été donnée pour ce débat, c'est l'insertion des jeunes mourites dans le milieu professionnel. C'est un thème très intéressant, mais qui a besoin d'être élucidé, d'être regardé, mais également euh, d'être analysé et diagnostiqué sous différentes formes. Euh, parce que je pense que c'est un thème qui peut être débriefé en plusieurs sous-thèmes. Euh, si on abstue le, le mot mourir ou jeune mourir et qu'on parle de l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel aujourd'hui au Sénégal, il y a un débat donc important, éminemment riche à plaider. Et si, bien évidemment, on parle de l'insertion des jeunes mourides, là, il y a un, un nouvel élément qui vient donc euh, euh, enrichir le thème. Il faudra dès lors qu'on puisse décortiquer le thème et euh, analyser les différents mots-clés qui entourent euh, la thématique. Donc, tout d'abord, l'insertion euh, professionnelle. Euh, aujourd'hui au Sénégal, et ça c'est un débat statistique économique, il y a un réel problème d'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Alors, Bien évidemment, un problème connaît plusieurs causes. Alors, il sera de notre devoir, nous, chercheurs et euh, intellectuels, de pouvoir définir la problématique. Pourquoi il y a un problème d'insertion des jeunes dans le milieu professionnel au Sénégal Et une fois avoir déterminé les causes, comment devons-nous solutionner cet impact Car Un pays où 60% de la population a moins de 30 ans, il y a urgence dès lors que cette frange de la population majoritaire n'a pas accès à l'emploi. Et on reviendra à la fin donc, de la version française pour faire comprendre que, en effet, travailler n'est pas seulement la quête ou la quintessence d'un matériel, ou en tout cas de, de numéraire, mais c'est bien au-delà euh, de ça. Le, le, le, culte, le travail fait partie intégrante de la spiritualité euh, de l'être humain. Euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul en définissant un peu ou trois en confinant le mouride euh, dans un tableau a dit Touba li habdin mouridin sadihin lahumu bi khidmatin aw bi hubbin aw adiyati le, terme de travail est venu au début c'est celui qui s'élabore, qui s'arbore. Et on entend euh, travailler comme si vous devez jamais mourir, mais prier comme si vous devez mourir demain. Il y va de l'importance du travail. Mais avant d'arriver là, le, la thématique sera dispatchée en trois groupes, donc en trois sous-thèmes. D'abord, on va aborder le, la thématique de l'insertion professionnelle. Après avoir parlé de l'insertion professionnelle, des causes et évidemment des conséquences, nous parlerions de, donc des jeunes en général, des jeunes africains, musulmans, chrétiens, quoi que ce soit. Et ensuite, nous reviendrons à la spécialité, à la spécification du mourir. Quel est l'apport que le Mouride apporte aux jeunes dans sa quête d'insertion du travail. Voilà la problématique. Pour euh, nos camarades qui sont dans les séries littéraires, vous pourrez me corriger si jamais euh, je me trompe, je suis scientifique. Alors, en parlant donc de l'insertion euh, des jeunes, aujourd'hui dans le milieu professionnel au Sénégal, on doit bien comprendre qu'il y a réellement une problématique Euh, de travail, d'insertion, que ce soit des jeunes et des moins jeunes dans la plateforme euh, euh, déjà de travail au Sénégal. Alors pourquoi Il y a pour moi, le problème est à la base. Donc, la recherche de la problématique se fait à la base, dans l'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, les élèves, les étudiants, les apprenants sont en train de rechercher ce qui leur permettrait après de pouvoir se professionnaliser dans un milieu Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre part, quels sont les différents critères et caractéristiques des institutions qui sont présentes Sont-ils valables pour recevoir ces étudiants qui ont été formés dans ces centres de formation et écoles Ça, c'est un autre cas. Une courbe qui démontre et euh, que parfois certains, certains philosophes contestent tout simplement parce que euh, le, le, fait de définir la, la vérité par rapport à, à, aux autres composants, c'est tout, tout simplement pas possible parce que euh, la vérité n'appartient qu'à l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais euh, pour vous dire qu'il y a donc cette, euh, ce diadème, il y a cette composition donc des différentes, euh, euh des différentes euh, façons, en tout cas étapes, que l'on arrive à stimuler la connaissance et en suivant, il y a bien une possibilité évidemment de, de, de, de s'accomplir. Donc, la recherche de la sagesse est différente de l'accomplissement professionnel. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont tendance à aller à l'école, à vouloir obtenir les diplômes pour avoir un poste. En faisant ça, on, on, on casse définitivement, on crache euh, donc en fait sur euh, toute cette composition de suprématie humaine. Il faut rechercher pour connaître. Et Charmot Bama nous, nous, nous rappelait que dès lors que la recherche de la connaissance, dès lors que la quête de la sagesse a à faire avec une quelconque besoin, un quelconque besoin matériel ou une quelconque finalité euh, numéraire, etc., elle est nulle. Donc l'être humain dans sa recherche de connaissances, sa recherche scientifique, se doit de le faire de manière désintéressée. Et c'est là qu'on qu connaît bien évidemment toute l'importance et toute la pertinence donc, de, ce, de cette déchirure entre les deux. Alors, la recherche euh, euh donc, de l'accomplissement professionnel vient en entend. Quand on travaille, et on viendra quand on parlera de la pertinence d'ajouter le mot jeune mouride dans l'élaboration de la thématique, qu'est-ce que ça apporte Donc quand on est dans un milieu professionnel, quand on arpente un milieu professionnel, il y a bien évidemment un ensemble de, de caractéristiques qui, qui sont à pour suivre euh, notre, notre, notre idéologie. Quelle est donc la problématique après avoir compris, après avoir essayé d'analyser de manière très brève l'aspect de la problématique donc de l'accomplissement humain dans nos écoles et universités, sachant qu'il y a un problème un problème, bien évidemment. Donc, euh, par rapport à l'apprenant et par rapport à, à celui qui l'apprend. Donc, le fait d'insérer de, de, les jeunes, le fait d'insérer, bien évidemment, euh, les étudiants et, euh, et, euh, et, élèves et apprenants dans cette dynamique de, de vouloir réussir. Après, il, a, il, il, il en va donc le défi de définir ce que c'est la réussite. C'est important. Nous y, euh, nous y reviendrons. Alors, donc ce qui, ce qui nous intéresse là, c'est de, de, comprendre tout à fait euh, la chose, donc l'élément du jeune qui, dans, comme nous tous, comme dans votre, euh, votre situation, est en quête de savoir dans quel but. Dans le but, bien évidemment, de s'accomplir plus tard. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran mm -hmm. après avoir euh, réglé vos problèmes spirituels et vos problèmes de, de la vie future, essayez de vous, donc de vous euh, implémenter, de vous euh, de, de, de, donner de l'importance à votre vie, donc à votre vie euh, présente. Donc c'est important de, savoir que le travail, avant d'être euh, euh, une chose donc, que n'importe quel humain peut faire, c'est une manière de montrer à Dieu subhanahu wa ta'ala une certaine adoration. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba nous a élucidé dans cette voie quand il parle de Hilm wal Hamal, la connaissance, la sagesse, mais également la mise en adéquation de cette sagesse selon les caractéristiques qui définissent cette connaissance. C'est important. Et nous, on, nous y reviendrons quand on présentera le fait que le mouride se doit d'être différencié selon Cheikh Abdullah Mbaké, que Dieu soit satisfait de lui, de ceux qui l'entourent et de ceux que lui il entoure. C'est important. Alors, dans cette recherche euh, donc de, du halal chez Ahmadou Bamba euh, a toujours euh, pris cette voie donc selon ce côté du halal il nous dit dans Mouaïbou Nafir euh, il demande à son Seigneur de lui attribuer des profits, mais des profits halal. il en de l'importance de la quête de l'accomplissement professionnel dans ce sens du halal. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes si on revenait à ces termes de, de, de, de halal. Et il est important d'y revenir. Donc, euh, quelle est aujourd'hui euh, cette, cette, solution du hilm wal hamal Il nous dit il faut bien évidemment que cette action puisse se miroiter à travers la sagesse qu'on a reçue. Donc, l'aspirant l'étudiant, l'apprenant, dès bas âge, dès le moment qu'il apprend, doit s'assimiler. Et c'est ça que j'appelle le principe de la prééminence humaine. Le, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit il, il revient donc à notre propre cause de choisir notre camp. Mais il faut, il faut, et ça c'est la autre problématique un peu de, de, de l'existence, que l'homme se doit bien évidemment de, de déterminer sa, sa, cote, il se doit de déterminer sa position euh, par rapport à, aux au, au propos du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais si on revient au fait que euh, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé l'homme et le djinn que pour mon adoration, que pour m'adorer. Il y pose un problème. Donc même le fait de travailler, même le fait de chercher le, le, le, le halal euh, doit constituer une branche d'adoration. Le capitaliste nous dira c'est pas possible. Le socialiste nous dira oh c'est pas possible. Le, les, libéraux, les libéraux nous diront non non etc. Mais c'est pour ça que Cheikh Ahmadou Bamba il a le, le mouridisme n'est pas, je n'aime pas appeler le mouridisme une confrérie, je le dis très souvent. Je l'ai dit un jour à mon professeur qui était, qui était un belge, on parlait du mouridisme, c'était quelqu'un qui, qui, qui s'intéressait beaucoup au mouridisme, et il m'a demandé euh, ce que c'était le mouridisme. C'était en Belgique. Je lui ai dit, le mouridisme est un courant de pensée, comme Adam Smith avec son fameux mercat, euh, excusez-moi, avec les, euh, les mercantilistes et physiocrates, et comme Adam Smith, David Ricardo, etc., euh, que nous, économistes, nous avons appris, avec leur fameuse théorie classique, néoclassique, libéraux, etc. Cheikh Ahmed Bamba est un homme avec une idéologie. Cette idéologie s'est concrétisée en, théorie. Maintenant, je le dis très souvent à nous, l'élite mourite, de théoriser de la forme la plus achevée cette, cet héritage de Charles Khadim, parce que sinon, euh, il n'y a, pas, a pas de pertinence. Donc, Cheikh Khadim est venu apporter un modèle alternatif crédible face aux théories qui existaient et je vais venir dans la conclusion. Pour suivre l'alchimie de, de, donc de, de l'exposé, dès lors qu'il y a donc une compréhension effective de la problématique de l'étudiant, de l'apprenant au sein de son milieu scolaire, universitaire, euh, professionnel, quoi ce soit, maintenant, euh, l'insertion professionnelle des jeunes Donc le deuxième mot-clé de la thématique, c'est les jeunes. Alors, ah. c'est quoi un jeune Le PNUD a, dit qu'on est jeune jusqu'à jusqu'à 30 ans. Donc jusqu'à 30-35 ans. Je pense que nos parents du foot ou en tout cas de, Gossas, ou ici de Mbaké-Baobol, seraient contre cette thèse. il y a une, appropriation des connaissances et des données qu'on doit avoir. Je tiens à ce fameux mot de l'habilitation, de la mise en adéquation. Doit-on, et c'est pas juste par rapport aux statistiques, mais par rapport à tout, doit-on tout prendre sans pour autant voir si ceci correspond bien ou oui ou non aux modèles économiques, aux modèles culturels et traditionnels de nos nations C'est important. Alors, Euh, le jeune, donc euh, le PNUD dit qu'on est jeune jusqu'à 35 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon le PNUD, il y aurait, et selon euh, la thématique, il y aurait un problème d'insertion des moins de 35 ans dans le milieu professionnel au Sénégal. Pourquoi Donc, dès lors qu'il y a une fossé entre le début donc, de, de cette habilitation professionnelle un, mauvais fabricant, point de bons outils. Un mauvais outil, point de bons fabricants, excusez-moi. Dès lors que euh, l'apprenant, la personne n'a pas reçu euh, cette, euh, cet apprentissage optimal. Il faut, il faut, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas euh, donc d'une mauvaise qualification des professeurs, bien au-delà. Je pense que les professeurs au Sénégal, pour avoir connu beaucoup d'écoles dans différents pays, je peux vous dire que les professeurs du Sénégal font partie des meilleurs professeurs qu'il qu peut être. Parce que ne serait-ce que apprendre, ne serait-ce que euh, faire connaître dans, dans des conditions africaines, mais même et, et sénégalaises, c'est très difficile. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y aurait un problème. Et bien évidemment, le, le niveau aujourd'hui intellectuel, le niveau de, donc de nos professeurs est très, est très bon, loin de là. Mais il y a un déphasage. Donc, le fait, c'est cette fameuse adage quand on donne du pain à celui qui a soif depuis une semaine. C'est pas possible. Ce que l'homme a besoin, c'est une connaissance commençant par lui et terminée par lui. Et ce que Cheikh Ahmadou Bamba a proposé. Mais il y a donc cette assimilation se doit d'être avec donc une base. Serigne Touba euh, nous dit euh, alayka ya muridu abdullahi fi kulli wahtin bi taqwallahi. Il nous dit ô toi le mourid donc à chaque moment soit soit en présence d'une crainte révérentielle. C'est éminemment important. Donc le mouride qui n'a pas de crainte révérentielle n'est en soi pas un mouride, selon Charles Donc cette crainte révérentielle, ce tawhid, l'apprentissage du fiqh et l'assimilation par soi-même du tazawouf doit nous incorporer, doit mettre en adéquation cet apprentissage que, que l'on reçoit. Le premier mot du Coran, euh, le, le nombre livre d'Allah subhanahu wa ta'ala fut Iqra, lit. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Peut-on mettre en adéquation celui qui connaît ou celui qui ne connaît pas Dieu parle aux intelligents. Et c'est pour ça que je dis très souvent que l'acceptation, ou en tout cas la compréhension du modèle de Sharma de Bamba, pourrait bien évidemment aider aujourd'hui les mourites et les musulmans du monde, et même les, les citoyens du monde, à donc cette compréhension de la sagesse avant l'intelligence. Je m'explique. Cette intelligence, mais totalement vide de sagesse, c'est ce qui crée ces pays riches, narcises, globalisés, industrialisés, mondialisés. Mais dont ces tours et les monuments ne peuvent cacher la crise existentielle et l'indigence morale. Il est important de nous dire que quand on va à la recherche de la science, euh, donc euh, de, de, du travail, etc., il faut un minimum, il faut une base statique. C'est la connaissance, c'est la cadre révérentielle. c'est quand Dieu se réconcilie avec sa place jadis. C'est important. Mais un monde, un pays donc de la, duquel Dieu est retourné, nul ne pourra connaître l'accomplissement social. Et je le dis souvent que ces blancs, euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces occidentaux, ces américains ont pu découvrir Mars, ont pu poser leurs pieds sur Mars, sur la Lune, sur, euh, etc., ont pu découvrir donc des, euh, la bombe atomique pour bien évidemment avoir euh, le monde aujourd'hui, les Occidents, euh, les, les, les, les, citoyens du monde sur leurs bottes. Ils ont pu donc ils ont découvert la magie de l'ADN, le miracle de l'Internet, etc. Mais ils ne peuvent pas définir la paix sur Terre. Politicienne qui nous couvre la vue, qui, qui, qui met ce voile d'illusion entre nous et notre émergence, puisque émergence moo xew il faut c'est une problématique il faut arrêter d'idéologie donc cette idéologie euh, théorisation des principes et commencer à agir et je le dis souvent dans ce pays il n'y a pas de voie de développement et d'émergence qui qui est un autre que celui de l'agriculture c'est important le Sénégal est doté en richesse agricole si on ne l'exploite pas c'est comme l'aveugle qui veut euh, développer sa vision, ou, et je le dis tout le temps, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ces problèmes euh, d'émergence, de, de, etc., économique, ça ne pourra pas commencer tant qu'on ne basera pas ces principes et ces idéologies sur des théories claires, nettes, qui correspondent à nos réalités et qui sont, dont les bases évidemment correspondent à ce que Dieu veut de l'humanité, à ce que Dieu veut de nous, à ce que Dieu veut de l'homme. C'est important. Car, je le dis, Il lui a plu à Dieu qu'il y ait ces Richard et Narcisse dont les voies et les décisions dirigent le monde. Mais il lui a plu également qu'il y ait l'avènement de personnalités au singulier, dont les, ces Richard, ces Richard, ces Narcisse, et ces hommes mondialisés et ces milliardaires suivront et adoreront, forcément. Il lui a plu l'avènement euh, du phénomène cher Ahmadou Bamba. Euh, pour donc euh, ne pas euh, entrer donc, dans le fond de dans le fond donc, du, débat, <laughs> du débat spirituel. Euh, donc la problématique de l'insertion des jeunes, il va de là. Il y a un problème de déséquilibre, de débalance entre les théories, entre en tout cas les principes appliqués dans notre pays, le Sénégal, et les, la réalité, ce qui se doit d'être fait techniquement et concrètement. Euh, il m'a été présenté un jour un projet qui s'appelle Mon pacte avec le Bawal. Très intéressant, qu'a fait un de mes oncles, par le job. et dans lequel il expliquait que le développement commence au niveau local. Tant que la localité, puis le département, puis la région, tant qu'on n'ira pas par escalier, le développement ne s'arrête pas à Dakar. Donc ce développement se doit de commencer au niveau local, au niveau euh, donc de, de ces, euh, de, de, des terroirs. Donc c'est important de se dire que les étudiants, les peuples de Mbaké doivent développer Mbaké. Les peuples de, de, de Kaulak doivent développer Kaulak. Et ce développement doit être maintenant encadré par euh, des, des, politiques euh, nationales, des stratégies nationales qui pourront bénéficier à toutes et à tous. c'est important. On me dit qu'il me reste, il euh, minutes, donc je vais attaquer la dernière partie, donc la spécification du mourid. il doit y avoir un interchangement. Cher Ahmadou Bamba, comme je vous dit, le phénomène du XXe siècle a apporté un souffle nouveau au monde, aux sociétés qui existaient. Donc il y avait une confrontation quand il est venu. Et il fut le phénomène que ne comprenait pas le colonisateur à cette époque. Il a mis en place un système qu'il ne comprenait pas. Il a mis en place, il a osé Cheikh Amadou Bamba avait de l'audace en implantant le mouridisme dans cette époque, fort dénégateur de l'islam, comme je vous ai dit. Et il a apporté avec lui un ensemble d'outils, de bagages. Et je dis souvent, si Serigne Touba était au Sénégal, beaucoup diront Ah ben, donc il est resté. Mais durant ce périple, Cheikh Ahmadou Bamba était bien évidemment en, en exil, à un moment où cette fameuse charte des droits de l'homme interdisait l'exil d'un homme libre. Donc Serigne Touba fut victime d'une injustice internationale. Il est important de, de, décrire ça. Alors, quelle est la spécialité, quelle est la spécification du jeune mouride Pourquoi quand on parle de jeune mouride, il, il, y doit donc y avoir une, une spécialisation C'est que Cheikh Ahmadou Bamba a construit l'homme. Il a construit l'homme et cet homme fut le mouride. Ce mouride qui se doit donc de se comporter, qui se doit d'avoir un ensemble d'éléments interdépendants, définissant ses habitudes, ses attitudes et ses aptitudes quant à la mise en place d'un système global basé sur l'approche rythme, comme je le dis, la théorie du rythme. C'est important, l'humanisme de l'islam. C'est se dire que ce monde qui est à nous, on doit le construire. C'est se dire qu'il faut être responsable. C'est se dire que dans l'insertion professionnelle, dans la bienveillance, dans la manière de faire. Et l'implantation, donc la, l'abritation, ou en tout cas l'optimum donc euh, reconnu à ce mourir, fera de cette société une société où les problèmes de corruption, etc. n'existeraient pas. Parce que l'homme serait au début et à la base de euh, son, ce processus. Et donc il est impératif et important de se dire qu'il faut réétudier cette plateforme, cette problématique du mourit. Le mourir aujourd'hui au Sénégal, des années euh, euh, auparavant, le, le, début de, ce, de cela, donc euh, la mise en place de, des daïras, d'écoles, etc. J'ai fait une école ici à Dakar qui s'appelle le César, où on ne pouvait pas faire ce que vous faites aujourd'hui à l'intérieur de l'école. Il nous était interdit de nous asseoir par terre et de déclamer les racides en haut, enfin, euh, euh, par la voix haute, etc. Et c'est au Sénégal, le pays où Cheikh de Bamba a vécu et a à, euh, à laisser un héritage. Ça, c'est un problème de nous, Mourid. Il faut, pour moi, euh, arracher ce qui nous appartient et mettre en place cette plateforme où créer nos entreprises, créer nos, nos multinationales dans lesquelles évolueront euh, les mourides, etc. et d'autres, non pas des mourides, mais dans lesquelles nous pourrons implanter euh, les, les, les, préceptes et les idéologies que nous a légués chez Ahmed Bamba. Est-ce que l'assimilation de l'héritage du Cheikh Modou Bamba se limite à parler et à déclencher. Non, il faut agir de par la voie la plus correcte, il faut mettre en place ces, ces, institutions. Alors, on ne crée pas des institutions du jour au lendemain, mais il faut s'inscrire dans la voie de détermination de ces actes. Le mouride, c'est celui qui, à l'image de Mme Fall, quand on lui demandait pourquoi il avait, mis les gnagnes dans sa tête, il disait « Yoneb Touba, de il avait préparé sa condition en tant qu'homme pour servir Cheikh Ahmadou Bamba si nous faisons la même chose dans nos écoles dans nos entreprises au Sénégal et ailleurs j'ai vécu dans un pays et je le dis très souvent l'une des raisons principales qui a fait que je suis revenue au Sénégal pour faire mon bac c'était que dans une école dans les écoles dans ces années en France il était interdit de porter ce voile et donc je leur ai dit moi j'ai un pays je retournerai dans mon pays pour apprendre et pour continuer Euh, euh, mon cursus scolaire. Donc il est éminemment important de vous dire arrêtez d'avoir ce complexe et je me mets dans ce lot d'infériorité. Arrêtons de nous regarder avec l'œil de l'autre. Cher Ahmadou Bamba, c'est la solution de l'humanité. Cher Ahmadou Bamba, c'est aujourd'hui celui qui doit sauver l'humanité de la turpitude et des stratégies de Satan. Et nous, les mourites, nous sommes les seuls, l'unique au monde à pouvoir mettre en place ces stratégies. Soit nous les faisons, soit je vous garantis qu'il y a ces mourites chinois, japonais américains français qui viendront au Sénégal qui les ferait te bu boobaa bu ñu gisee sëriñ bi dinañ am gàcca kon euh, pour euh, l'heure de la version française on me dit que c'est terminé on va euh, je ne sais pas maintenant ou après s'attaquer à la version wolof. kon ñu ngi nuyuwaat mbokk taalibe yi fi teew yëpp di am mbégte bu baax ci teewaay bi nga xam ne teew nañ ko nga maa ngi sànq ci ci tubaab ne bu ñu teewee Mbàkke dafay mel ni du hasard. ndax donte dëkkuñu fi xamuñu dëkk bi bu baax suñu maam di jur suñu yaay doon na fi meer ay ati ati at muy Samba la jóg kon dafa mel ni ñëw bi ñu ñëw fii mbégte la bànneex bu yaatu ci ñun waaye nag ñu ñëw ci bërëb boo xam ne bu am solo la muy bërëb bu xam-xam ñu nekk ndongo lu ndaw nag lu ñàkk xam-xam lool lu Sëñ Tuubaa dimbale rek ngir mu jàpp ne ci kàllaamaam dana ci mën a déggoo ngir suñu xalaat doon benn kon ñu ngi may xamal ne ma version wolof bi résumé lay doon rek du doon luy gudd waaye dafa mel ni li ñu fi indi mooy waxtaanee banqaas bu am solo muy jafe-jafe yi nga xamante ne bii way ndaw ñi te ñu ñu ci bëri doon ay murit kon ndaw yu murit yi am nañ ko ngir di yëngu maanaam am liggéey kon loolu lan moo ko indi kon ndegam dañuy tënk rek. fawuñ wax ne dañoo xaajoon waxtaan wi ñetti xaaj bu njëkk te loolu dëppoo ak baat yi nga xam ne moo tënk euh, kon moo tënk banqaas bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee kon mooy yan jafe-jafe la nit ki di am nit ki ci ecole bi nga xam ne dañu fay jàngee wala fi nga xam ne moom fay jàngee la muy jàng loolu war koo mën a jariñ ngir ëllëg mu mën koo jëfandikoo ca fi muy yëngoo bu ci topp mooy ginnaaw ba nga xam ne nit ki am na jafe-jafe boobu kon bu demee ba kon toll ci ndawam war a mën a yëngu ban jafe-jafe la ndaw moomu am ci yëngu boobu kon ñetteel bi doon it ginnaaw ndaw googu bu fekkee dafa am jafe-jafe ngir yëngu nekk gi mu nekk ak murit lan la lan lan la ci am loolu ban importance la ci doon kon dafa mel ni euh, thématique bi mu ngi noonu noonu tëddee ñu waxoon ci ne jàng mi fii ci réew mi ndax moom lañu xam moom la ñu mën a seede jàpp nañ ne bokk na yi li tax problématique am mooy nit ñi dañ leen di ni ki li ma ko waxee woon dangay fekk kumar lool nga koy joxub ceeb lañuy jàngal nit ñi ci école yi xale yi dëppoowul ak dëgg na leen yàlla bindee ngir ñu war a recevoir information kon dañoo war a jàngal nit ki xam-xam boo xam ne dafay désintéressé ba pare kon diplôme bii ngay sàkku doonul da dangaa war a dem liggéey ci banque wala ci entreprise diplôme bii ngay sàkku danga koy sàkku ndax dangaa war a am xam-xam wax naa leen sànq suñu borom nee naa xul xal yastawi allazina yaxlamuuna allazina laa yaxlamuuna ndax dinañ da boole ndax di lañ yamale ki xam ak ki xamul laaj bu ñu yàlla laaj la déedéet kon xam-xam dafa war a tënku ci nit ki nan lay def fi muy dundee mu mën koo jariñ kon balaa mu lay jariñ ngay yëngu wala ngay am dara ci àdduna ci wàllu ay xéewal ak yu mel noonu kon kon dañuy tënk loolu la ñuy wax beneen bi ci topp mooy ndaw ñi lan moo tax bu fekkee nen ne ndaw mi dafay am problème tey jii pour am xëy xam nañ ne Sénégal bokk na ci problème yi gën a ndaw ñi da ngay gis ku ba génn université am masteur am du mën a am am xëy suñu waajur yi nga xam ne sonnoon nañ ci fay sonnoon nañ ci suñu jëmm yi teraanga gi nga xam ne amal nañ leen ko kon duñ leen ko a delloo ndax amuñu ci luñ jàpp su boobaa loolu day liggéey nit ki day def li ñuy wax oisiveté ci moom muy ak wayadi day dem ba day jàpp ne moom kon jariñul dara muy complexe d'infériorité day jàpp ne kii liggéey di ko bokk na ci dëkk yi nga xam ne amuñu benn ressource naturelle 1960 Sénégal ak Corée du Sud ñoo tom tolloo woon niveau de développement te Sénégal moo ko rawoon ndax Sénégal amoon na ay ressources yu Corée du Sud amoon amul tey Corée du Sud yaakaar naa mooy septième pays mondial kon man lan mooy problème bi Corée du Sud dafa basé développement ci ay réalité moom xool la mu mën mu def ko ñun nag dañuy jéem a doon ay Jean François ak ay Jean David ay tubaab lañ bëgg a def suñu bopp looloo tax mënaguñoo dem kon problème bi mi ngi ci interprétation bi nga xam ne war nañ koo def ci ñun suñu modèle de société loolu mooy dënk lépp waaye bokk na ci li tax ndaw ñi gisaguñ seen bopp ndax politique yi bu ñu fekkoon ne taxawal nañ système yoo xamante ne bii tey bëri na ci wàllu mbay ndax wax ma koy wax mbay rek jàpp naa ne mooy li nga xam ne moom mën nañ njëkk a suqali Sénégal fi ñu toll ñu def ko waaye it ndaw ñi tamit xam ne bañ a polariser yi ñuy polariser liggéey jàpp ne liggéey rek mooy moom fa nga nekk ci ginnaaw bureau boo demee États-Unis ka ëpp xaalis xamut luy bureau ma ngay bay ma ngay napp ma ngay sàmm waaye tey jii ku am un master 2 ci wàllu mbay agriculture nangam dafa war a ko nekk un agronome di def ay rapport waaye warul dem fii ci waalo bay soble warul dem nii bay déedéet lu tax kon problème bi mi ngi ci état bi nga xam ne seen politique yi ñuy appliqué baaxul ci yenn yi waaye mu ngi ci ndaw yi nga xamante ni bii kat ñoom jàpp nañ ne bu ñu tiimul ak ordinateur rek seenum jàng amul njariñ déedéet Sénégal boo fi tuddee baykat yërmande la ñuy am ci moom boo demee Amérique wala dëkk ni Norvège boo tuddee baykat maanaam ci ñu bokk ñu ëpp alal lay bokk kon problème dafay posé wu kon ci ci loolu euh, ñetteel bi dañuy tënk rek ñu ne kon ginnaaw bu nga xamante ni bii problème am na ci école bi fa ñuy jànge waaye am na yi ci bu fekkee dañoo nekk ndaw ngir na nga xam ne war nañoo dundee suñu xam-xam ngir man koo jariñoo amul waaye ka nga xam ne dañ ne jeune murit ndaw ma nga xam ne moo ab murit la kon kooku ban défi la am moom complexe waru ko am ci tubaab suñ tubaab rek la woon na problème boobu ca géej gi ba mu ne leen maanaam njariñ nekkul ci ko weex nekkul ci ko ñuul kon war nañoo jàpp ne Cheikh Ahmadou Bamba la mu taxawal ab soññe la waaye soññe boobu mu taxawal nag da koo taxawal ci ay critères yu leer ci liggéey ak jaamu yàlla kon li ku tedd ki doon wax rek si Abdou Aziz mi toogoon nañu bàyyi naxante bi ak jayante bi maanaam nañu dëggal te loolu ndegam xëy na suñu kilifaa fi nekk duñu sañ duñu sañee waxe nee na li waaye sama mbokk soxna yi avant may delloo micro bi dafa am benn message rek boo xamante ne bu ma sañoon ma baaxee leen ko muy jamono dafa toll foo xam ne jigéen lañu jël def ko outil commercial def ko outil de marketing di ko jëfandikoo bu ngeen ubbee seen télé ngeen xool publicité yi rek da ngeen di xam ne jigéen perte na valeur jigéen amatul valeur ñàkk valeur googu nag mu ñàkk valeur dañoo xam ne vulnérabilité ci la ñuy basé ngir di bëgg a def li leen neex kon ñun ñi taalibe Serigne Touba yi dañoo war a bañ ndax Serigne Touba dafa am wal boo xam ne da koo jagleel soxna yi te bu ñu jëlee misaal ci way yorom wu tedd ba jaara mi nga xam ne ñetti fanweeri at ak ñett yi mu dund wecc nañ euh, téeméeri at ci jub ak ci leeral bu ñu jëlee ku mel ni soxna Anta Ndiaye ku mel ni euh, soxna jaara di soxna Mama Asta Walo xëy na du ñu may ñu yaatal waaye dama bëggoon na rek ñu xam ne ñun ay taalibe lañ dañoo war a sasoowoo ci loolu ci ñaar bu njëkk bi muy xeetu muuraay yi nga xam ne dafa xew lool beneen bi di jàngum xaside yi ci jigéen lu gàtt lay doon phénomène muuraay fashion yi fashion new look hijab fashion dafa bëri dañoo war a xam ne yàlla dafa ne dafa soxna yi dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan nabi xulli wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna kon yàlla dafa digal jigéen muy obligation ci moom muur ay ciram nit julli nekkee ci moom koor nekkee ci moom waaye muuru rek du ni ko soxna may di defee fexe ba mu niroog say dàll wala ak sa saak déedéet dafa am lu war a feeñ ak lu warta feeñ sel ci buñ koy def yéen yi nga xamante ni bii du du jag du baaxul ñu koy bañ waaye emaayu di jàng xasida mm, puudaru lool di jàng xasida sol luy biree sa yaram di feeñ ngay jàng xasida nañu wàññi loolu te xam ne suñ ko waxee doomi alal la fa mooli wa tasatturi wala tax fi di tax fi daxal tushkar yi ñu ñu wéyal loolu te xam ne ñun ñooy avenir u àdduna ndax ñooy jigéen te lépp lu baax ci ñun lay tàmbalee waaye safaan yi ci ñun lay tàmbalee ñu bëgg bu baax di jéggalu kàddu yi ñu xam ne xam-xam bi moo fi nekkul euh, ak ñàkk a mën a wax.